nag boo gisee am euh, discipline moo ko euh, ba c'est un gagnant, un combattant quelqu'un qui a fait 20 ans à la NBA qui a gagné 5 titres de la NBA n'est que MVP saison régulier que MVP finale NBA perte des finales NBA euh, je pense que immense carrière bi te kenn mësu ko gis si benn comportement boo xamante ne bii bu négatif la loolu je pence que li mu am tey loolu si la bokk et puis aussi xam nga dafa am koo xam ne moom la jëloon mu nekk idolam muy Michael Jordan bi Michael Michael Jordan demee retraite euh, dañ daan gis toujours euh, moom Kobe Bryant di def lii xamante ne moom la Michael Jordan doon def donc comme le ma dit, wax c'est un oiseau rare du basket mondial qui nous a quittés donc le euh, monde entier aujourd'hui mobilisez mobilisé les États-Unis mobilisez-vous. Los Angeles Lakers mobilisez-vous par rapport à son décès vraiment c'est encore triste on a perdu vraiment vraiment quelqu'un koo xam ne euh, man damay delu si rek di wax ni mu demee daal moom ma gën a metti quoi façon bi mu demee daal xëy dem ànd ak sa doom muy dem dem ngeen dem si benn académie boo xam ne moom moo ko tijji woon bosom la moo ko créé doomam di dem pour dem jouer ji euh, yàlla def euh, mu yàlla jël ba bakkanam ak doomam si hélicoptère accident hélicoptère loolu mooy li nga xam ne vraiment euh, metti na mais nag bon yàlla moom kenn mënul bëre ak moom loolu la yàlla namoon ci moom loolu la yàlla def si moom ah, ñu ànd si rek ah jël lépp delloo ko sunu loxoy borom daal. Je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer à Los Angeles. Une fois, on me demande en vacances aux États-Unis. Parce que bon, mon beaucoup de ma génération, Makomak. Donc, man, presque, bimay bayi ça, bon, mon le quoi. Parce qu'il est né en 60, 78. Euh, Donc, moi, presque, je suis son père, quoi. Donc, euh, j'ai pas joué avec lui. Euh, am ñu bari sax dañu foog ne ñun anciens yi kenn nekk fi or que ñun ñi si bëri ñibbise nañu boo gisee nag ñu toog suñu coin euh, mënuñu def li ñuy def ak vécu bi ci am ba pare te ñoom ñu xam ñu bu baax a baax a baax ba di bëgg a boole ak ay wax ku si man ni man moi je suis pas partant de ça parce que euh, fii ñu jaar jaar fa yombul boo gisee basketu Sénégal ñi koy diriger euh, ku si mel ni président bi par exemple xamul sax luy basket musul sol mayo mayo basket ku mel noonu ñu jël ko tey muy diriger basketu Sénégal dafay xaw a doy donc ñun ñëpp on nous a mis te man lépp loo xamante ne lii man maa ko moom du ma ko xëccoo suñu ñëwoon fekk ñu ñëw nañu kat màgget euh, basket bi dafa am loo xam ne da ngeen cër boo xam ne da ngeen si da ngeen si war war a dox mais bu boobaa dañ koy dox avec plaisir mais aujourd'hui il se trouve que ñoom ñu bañ ñu gis sax moo leen gënal ñu gis ñu gis ñu parce que Sénégal bëgguñu ko man ku bari wax la ñu bëgg te nun nag dañoo man def suñuy preuve dans le monde entier euh, kenn jàngal ñu basket fenn farul fii ci Sénégal man Ousmane Pouy Faye moo ma jàngal basket à l'ASFA donc euh, li ma jàng fii ci Sénégal moom laa mos a éprouvé ci terrain yi nga xam ne moom laa mos a joué yëpp ci monde bi donc euh, euh, ku ñu négligé nag ñu négligé négligé la man moom de ma part personnelle kenn ëpp ma fulla kenn ëpp ma fayda soo ma reconnaître ma reconnaître la mais ba ma reconnaître rek du ma la reconnaître parce que nag li ñu def boo duggee ci net bi nii ba léegi nga nga nga fekk ko fi jouer 15 de pro. 17 ans de pro en France de, de très très haut niveau ku la ne yomb na day wax lu ko et puis ngay jouer pour être champion il ngay jouer pour maintenir da ngay jouer tableau pour être champion euh, comme bi ma sur le basket comme bi ma nekkee Gravelines ak bi ma nekkee Le Mans donc euh, yooyu yëpp ay référence la yu nga xamante ne avant ñuy dem aussi man avant ma au Sénégal fekk na ma nekk international comme léegi léegi ku neex nga dem man bi may jóge en di dem France boobu fekk na au moins 25, minimum 25 cinq sélection équipe nationale ba pare nekkoon deux fois aussi roi du basket nekk fi meilleur joueur d'Afrique. Ah, dem def sélection d'Afrique, aussi boo Afrique man Sénégal man maa au Suriname à Paramaribo donc yooyu fait yooyu vécu ku ko am basket euh, te reconnaître ñu la mais da ngay toog jàpp sa dal. li nga wax ni mais ça fait plus de 20 ans ma doon dox pour euh, les autorités compétentes jox ma terrain bo xamante ne fa mëna def terrain basket pour euh, euh, créer sama académie mais il se trouve que le Sénégal c'est une façon de faire est générale euh budul sen bop wala lu ñu gisul sen intérêt du ci dugg donc bama doxé doxee yooyu yëpp ma gis ne lii demul laa toog sama njàmbur mais néanmoins fepp fuma ma kuy basket. dama leen mas di dimbali financièrement euh, euh équipement aussi ma di leen dimbali yenn saa yi aussi ma dem terrain jokkul euh, lu ma leen mën a aider apporter sur le plan basket tamit ma ma def ko mais nag euh, am naa benn projet ak ay partenaires boo xam ne je pense que très très bientôt yàggatul je vais prendre vraiment les choses en main pour que vraiment defar sama benn académie defar sama terrain basket pour mën si dimbali surtout sax waa Tëngéej parce que man lépp lu ma gagné si àddina Tëngéej laa ko mos a indi su su dul je pense que les sportifs on déjà rendu hommage depuis hier ça a commencé et ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui euh, Kobe Bryant était un phénomène dans le basketball mondial et surtout à la NBA comme je disais tantôt euh, Kobe Bryant était euh, un oiseau rare dans le basket. Et ce qui lui est arrivé hier, vraiment, vraiment, vraiment, c'est toujours douloureux. Je ne dirais pas que c'est une perte parce qu'on on ne lutte pas avec le bon Dieu. Le bon Dieu a décidé ainsi et on n'y peut rien. On ne peut faire que compenser. Mais je, ce, que je peux vous dire sur Kobe Bryant, quand on le voit sur un terrain de basket, un joueur aussi élégant, un, professionnel, un gagnant, un combattant. Et ce qui m'a fait plus mal, c'est la façon dont il a perdu la vie avec sa fille. Vraiment, ça, c'est atroce. Mais bon, comme on dit, euh, une fois de plus, on ne peut pas lutter avec le bon Dieu. Le bon Dieu a décidé ainsi, voilà, comme ça, quoi. Donc vraiment, je le rends hommage. C'est quelqu'un qu'on ne doit pas l'oublier. On ne peut même pas l'oublier. Parce que ce qu'il a fait la demeure. C'est pour ça, une fois de plus, euh, je dis Kobe merci. Et repose-toi en paix, parce que tu le mérites euh, largement.